إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñu ngi seede ne yàlla rek moo yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi seede ne yonent yàlla Muhammad jaamam la ba mu yónni woon ci ñun ngir mu jàngal ñu naka la ñu koy jaamu ñu ngi ñaan yàlla na yàlla sax di julli ci moom ak njabootam ak ña koy topp ba ila yawmi diin mbokk jullit suñu boroom yàlla day nee na dafa baaxe dafa xéewal xéewal gu màgg ñi nga xam ne dañoo gëm ay ñi gëm yàlla ak yonentam mu ne baaxe na leen jamono bi nga xam ne génn na ci ñoom yonent ba bokk ci ñoom yonent boobu di jàng ay seen ay aayam ci ñoom di leen sellal di leen xamal lii di téereb yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waaye mbokk jullit xéewal googu dee ka bàyyi xel foo mën a toll ba yàlla indee doomu aadama ci suuf yàlla rek moo xam ñaata yonenti la yónni ñaata xeet ñoo fi jaar yow suñu borom yàlla boole la ci xeet bi gën ci xeet yi boole la ak yonenti bi gën ci yonenti yi loolee jullit bu ne war na koy bàyyi xel waaye bokk na lam cay bàyyi xel suñu boroom bi mu ne daf ñoo baaxe yonent boobu ñëw gëm ñëw lan la ñu jural suñu boroom yàlla subhanahu wa taala nee na mi ngi leen di jàngal alquran mi ngi leen di sellal ba génne ci ñoom gépp bokkaare gépp rëy gépp génnuk topp jàngal leen la nga xam ne moom mooy sagesse xikma bu ñuy mën a dunde ci kaw suuf loolee mbokk muy wane ne gëm gi ñuy gëm yeneen ti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam ñu mën a jëriñ mooy fekk dañoo xam lan la ko yàlla yónnee muy téere bi yàlla bi xam lan mooy sunnaam waaye góorgóorlu teg ca la nga xam ne mooy suñu tànk loolu nag mbokk la ñu koy may mooy ni ngay gëmee laa ilaha illa allah yeyewul kenn yeyewul ñu ko jaamu ku dul yàlla noo ñin ngay gëmee amul kenn ku ñu war a topp topp gu mat sëkk ku dul yonent yàlla ku dul yonent yàlla mbokk sahabatul kiram amoon nañu sëriñ su màggoon ci ñoom lool kii di abubakarin siddiq nga xam ne moo wuute yonent bi omar ibnul xataab radiyallahu anhu ñu nekkoon sëriñ yu mati sëriñ naam waaye ibnu abbas daana wax man dey yéen ñii ragal naa yàlla tuur ci yéen ay xeer yu jóge sawara naka lay tooge ne yonent yàlla muhammad nee na nga gis ku jóg naan ah abubakar day daana wax wala omar daana wax laa wallahi suñu xisee ba wax waxu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam bépp wax bu safaanoog moom ak fu mu mën a jóge dañ koy delloo ci àll ba loolee mbokk mboolem borom xam-xam yi ñuy topp ñu ñëw gannaawam loolu lañ doon wax imaamu malik abu hanifa imaamu ahmad shafii amul kenn ci ñoom lu dul nee na heure bu ngeen déggee ci man wax wax ba safaanoog waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngal la waaye sànni leen samay wax ca la nga xam ne mooy ñag ba loolu la jurit war a gëm gëm ne yonent bi duñ ko boole ak kenn yemul ak kenn ay ndigalam yemul ak ndigale kenn ñu gëmit ne yoon wa jëme ca yàlla mooy yoonam kese amul beneen yoon looloo tax mu daan wax ne maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom amul benn chrétien amul benn juif boo xam ne dana xam ne digg na yàlla yónni na ma ba pare mu dee fekk gëmuma lu dul kooku sawara la jëm ndax mooy benn yoon bu yàlla ubbi mu jëmee ajjana beneen yoon bu dul boobu sawara la jëm lool it mbokk julit suñu borom yàlla gëm gëñ gëm yonent yàlla bi rek du doy bal gëm ga du dëggu lu dul ne yonent boobu dañ koo topp topp gañ koy topp moo ñu jëmee aljanna yu dul yonent boobee dañ ko war a roy roy gañ koy roy moo ñuy yóbbu aljanna dañu musal ci sawara loolu nag lay tax mu mat sëkk mooy yonent bi gënal ñu keneen ku dul yonent yàlla bi yonent bi gënal ñu keneen ku dul yonent yàlla bi ca loolee mbokk farata la nee na amul kenn ci yéen koo xam ne yàlla dana nangu ngëmam lu dul maa koy gënal ndeyam baayam bakkanam ak njabootam ak nit ñi mboole seen loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax suuxat ko ci seen xolum njaboot ñi ngi ci jamono joo xam ne doomu aadama yi ña ñuy màggal ñooy ay sëriñ suñu jàpp ne ñoom ñoo yor seen texe ci seeni tur la ñuy waat ci seeni tur la ñuy ñaanalante seeni daraja lañ yaakaar adduna ak alaxira loolee la ëpp ci ñoom xamatuñu ko yonent yàlla bi galla waay seen njaboot suuxat leen ci ñoom turu yonent yàlla muhammad de leen xamal ne yonent yàlla bi nee na digle ne nangam yonent yàlla tere ne nangam gëm loo leen ne yonent yàlla bi moom la ñu war a gën a bëgg keneen ku dul moom ndax loolu rek mooy tax ñu texe suñu borom yàlla nee na su ngeen demee day ba seen baay yi wala seen doom yi wala seen frère yi wala seen soxna yi wala famille yi ngeen bokk wala alal ja ngeen di faggu wala seen dëkkuwaay yu taar yi dem ngeen ba am lenn lu leen ci gënal yàlla ak yeneen tam na ngeen toog ba yàlla ñëwee ki mbiram xam leen ne yàlla du jubal xeet boo xam ne xeeju toonkat la mbokk yonent boobu bëgg gañ koy bëgg looloo tax ba ay ndigalam noonu lañ koy bëggee ba duñ ci am lu ñu ciy hésité suñu borom yàlla mu ne yellul ñeel benn julit góor nga wala jigéen nga dégg na yonent yàlla moo tere lii wala yonent yàlla moo digle lii an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim muy nekk nag di tànn wala di hésité maadaama yàlla nee na dégg nañu topp nañu yonent yàlla nee na dégg nañu topp nañu suñu borom yàlla mu ne ñii di woote ne bëgg nañ yàlla bëgg nañ yonent yàlla gëm nañu borom bi mu ne déedéet maa ngi waat ci sa borom ni seen gëm googu duma ko nangu lu dul ci yow la ñuy dellu lépp loo xam ne juyoo nañ ca ñu xool ana lan la yonent yàlla muhammad atte ci loolu te bu ñu xamee ne yow lii nga atte ñu nangu ko jébbalul yàlla ak jébbalu bañ a am benn xat-xat ca la nga xam ne mooy seen xol ba seen xol ya ay yéen julit kii mooy yonent yàlla muhammad moom la yàlla tànnoon muy nit ki gën ci kaw suuf nit ki gën a complet ci ay jukkoom suñu borom yàlla tagg ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow day yaa ngi yor jukko yi gën a kawe gën a mat jukko yooyu nga xam ne moo nekkoon téere borom bi jalla waala ca amul benn réew amul benn société lu dul ngir bëgg seen société jëm kaw dañ leen di jox ay référence yoo xam ne mooy seeni royukaay galawaay yow jullit xamal ni royukaay bi gën a màgg ki nga xam ne loo gën a nuroog moom gën a baax loo gën a nuroog moom gën a am ngërëmal yàlla loo gën a sori ay jukkoom yàlla gën laa soril mooy sunu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yonent boobu ay jukkoom war naa tax ñu bëgg ko yonent boobu suñu borom mu ne ko wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la lu dul am yërmaande bu ma am yërmaande ci jaam yi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yërmaande googu nekkoon ca xolam mu jagleel ko mbooli mi julit amul lenn loo xamee ni nii danañu jegeel yàlla jalla wa ala lu dul leeralal na ko xeet bi avant muy faatu amul lenn loo xam ne dana alak xeet bi lu dul leeralal neen ko avant ñuy faatu looloo tax mu bokk ci danger yi gën a garaaw mooy doomu aadama di sos jaamu yàlla gannaaw yonent yàlla jàpp ne loolu da koy jegeel yàlla loolee la mu bëgg a wax mooy imma yàlla daa fàtte woon loolu wala lii yonent bi da koo xamoon nëbb ko te xawma ban moo gën a garaaw ci ñaar yooyu mbokk yonent yàlla ba moom moo jëloon la nga xam ne mooy dundam teg ko ngiree diina yegg ci jaami yàlla yi ci loolu jihaad na ci jihaad yu dul jeex lu jege fanweeri yoon sallallahu alayhi wa sallam takk na ko jaasi dajeeg noone di xeex ak ñoom kenn xamul nag ñaata xare la yónnee ngir kàddu yàlla taxaw damm nañ ca bëñam ba tuur nañ ca deretam ya yuuxu nañ ko ca mbedd ya dàq ko lu ne def nañ ko ko ngiree lan ngiree kàddu yàlla gi jëm kaw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent boobu yàlla tagg na ko nekk na bil muminina raufur rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim suñu borom mu ne ay yéen julit ñi dikkal na leen yonent boo xam ne ci yéen la bokk lépp loo xam ne day jafeel xeet bi da doon ñaan yàlla fegal leen ko lépp luy jëriñ xeet bi da doon ñaax xeet bi ngir ñu taxawe ko ngiree yërmaande ba amoon ci ñoom bal sallallahu alayhi wa sallam bis ma ngay jàng téereb yàlla bi ba jàng la nga xam ne baayam ba ibrahima waxoon na ko ca mooy ay yàlla sama xeet bii nga xam ne mooy nañ ma fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asaani fa innaka ghafurur rahim ku ma topp day ci man la bokk ku ma mooy nag yaay jéggalaate mu jàng la isa waxoon in tuazibuhum fa innahum ibaaduk wa in taxfir lahum fa innaka antal azizul hakim la nga xamee ne nii mooy isa ba nga xamee ne nii xeetam mooy na ko bu dajeeg ñoom yowmal qiyaama li muy wax yàlla ñi ngi nii kat say jaam lañu soo leen baalee nga xam ne yow yaay borom kattan gi soo leen yër jéggale it nga xam ne yaay borom yërmande ji yonent bi bi mu jàngee aaya yooyu mu daal di jooy suñu borom yàlla mi xam kumpa daal di yebal jibril na ko demal ne muhammad lan lay jooy bi jibril ñëwee ci yonent yàlla muhammad ne ko waaw muhammad sa borom nee na looy jooy mu ne ko ah sama xeet sama xeet jibril dellu ci borom bi ne borom bi ko yónni woon ca gën koo xam ne ko ah nee na day xeetam lay jooy balaa alkaa nga dal ci ñoom mu ne ko jibril dellul neel muhammad danaa seral xolam ci xeetam duma ko woon lu koy naqari ci xeetam mbokk kii mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne nee na mboolem yonent yàlla yu ni woon ku nekk may na la ñaan goo xam ne nee na ñaan ma ko ma may la ko waaye yonent yépp ñaan nañ seeni ñaan mu ne man nag dama denc samay ñaan ba baa yowmal qiyaama ngiree ma jagleel ko rammu ña nga xam ne ñooy sama xeet wallahi mbokk julit ki xam yonent bi mel nii xam taxawaayam adduna ak alaxira du ko yemeleeg aboubacar wala omar wala ousman wala ali wala kenn koo xam ne judd na fekk ñu màggal ko ci ay noppam abadan day xam ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la war a gën a bëgg topp la nga xam ne sunnaam moom la war a gën a yaakaar ca loolu mbokk mag ñu baax dañu jiitu woon day wallahi ca la ñu nekkoon mooy sahabatul kiram sahabatul kiram buñ doon wax seen bëggug yonent bi mën nañu fee dem ba xaaju guddi fekk ñu fa waaye nañu xool rek kii nga xam ne mooy Urwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu avant muy tuub waa Makka yónni ko na ko demal waxtaan ak Muhammad ca Hudaybiya fa sahaaba yi doon jaayante ak ñoom ana ba mu ñëwee lan la leen wax mu ñëw mu ne ay yéen waa Makka xam ngeen man may kan buuru àdduna yépp toog naa ak ñoom dem naa ca Qaysar buuru Ruum dem naa ci Kisri buuru Faris dem naa ca Najashi buuru Éthiopie waaye wallahi musumaa gis mbooloo moo xam ne bëgg nañu màggal nañu respecté nañu ka leen jiite ku mel ne ni Muhammad mii naka mbooloom jiite maa ngi leen di wax négocier leen ak moom ñu dellu de ñii kenn mënut a xeex ak ñoom mbokk lii ab yéefir moo ko seede woon ci yonent yàlla bi te sahabatul kiram noonu lañ meloon suñu masaan toog ak moom da ngay gis na dañuy jatt seeni loos jatt seeni kaddu mi ngi noonu lépp loo xamee ni digal da koo digle ñu ca daan xëccoo bëgg ko bëggeel goo xam ne jiggi na dayoo mi ngi noonu ca loolu mbokk bokk ci jaamu yàlla gën gën a yaakaar bëgg yonent yàlla bi anas ibn malik radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaam day am na benn kaw kaw gu ñëw ne ko ey muhammad mu ne ko naam mu ne ko waaw bisi penc kañ lay taxaw mu ne ko yow loo waajal bisi penc waa ji jattuloo si mujj mu ne ko ah xam naa daal xaw ma jëf yu bëri yu ma xam waaye daal bëgg naa yàlla bëgg naa yonent yàlla yonent bi ne ko ki nga bëggal ngay àndal yowmal qiyaama saxaaba yi kontaan ci loolu kontaan te bëgg na rëy ndax ñoom xamoon nañu comme la ali ibn abi talib waxoon ba ko waaji laajee na ko waaw yow ali yonent bi ba muy dund nu ngeen meloon ak moom mu ne wallahi gisoon ko moo ñu gënal suñuy ndey ak suñuy bàyyi waa ji maroon ci jamono tàngoor bay waaja de ñu indil ko ndox mu sedd bëggeelu yonent bi alayhi salaam moo gën a màgg ci moom mbokk nii lañ meloon góor ak jigéen bokk na ci loolu keroog ghazwatu Uhud benn soxna ci bani Nidaar mi ngi noonu bani Nadaar la nga xamee ni nii moom mooy benn waay daje na ak moom ne ko ah soxna si muñal de sa baay de rey nañu ko mu ne sant yàlla waaye ana yonent yàlla bi am ñu dajawaat ak moom ne ko muñal de sa soxna sa sa doom ju góor de day des na ca xare ba mu ne alhamdulilah mais ana yonent yàlla bi am ko dajeeg moom ne ko sa borom kër faatu na ci xare bi mu ne alhamdulilah ana yonent yàlla bi ñu ne ko yonent yàlla bi mi ngi ci jàmm mu ne waaw anamu bañ demee ba woon koy yonent yàlla bi mu ne ko kullu musibatin baadaka jalal amul benn musiba boo xamee ne nii danaa ko bàyyee ci xel comme yàlla muccal na la mbokk soxna benn bis sa baay sa doom sa borom kër faatu waaye maadaama yonent bi mucc na bànneexu muccuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàttaloo na ko musiba boobee mbokk ñii ñëw dundoon ak moom bëgg ko bëgg goo xam ne kenn mënu koo melal waaye nag mbokk julit mbëggeel googu nuñ ko doon feeñale nuñ ko doon feeñale ndax mooy jël ay bâche indi lamp yi indi manq yi togg-togg yu neex jigéen ñi takkaaw yi seen or sol seen i déguisement ñuy jaayu gauche jaayu droite bànneexu ndax li lañ doon wane seen mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa wallahi mbokk julit nañ ko doon wane mooy màggal aw turam heure bu ñu déggee turu yonent bi alayhi salaam ñoom ñépp ñu ànd julli ci moom bari woon lool di julli ci moom fu ñu mën a toll ndax xam nañ ne foo jullee ci yonent bi yàlla delloo ko ak ruuxam mu dellu ci yow julli gannaaw ba yàlla julli ci yow la nga xam ne mooy fukk yoon nañ doon màggale yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy topp sunnaam sa di ko jàng di ko xentu nañ doon màggale yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dara jarulul loon woon jooyoo ak yonent boobee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii mbokk jullit mooy la nga xam ne moom lañ koy màggale ca muy gëm ko topp ko roy ko bëgg ko bëggeel goo xam ne duñ ko boole ak kenn sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci loo xam ne nii tey ñi ngi koy waajal lu bari ci àddina bi ñi ngi koy waajal pour wane mbëggeel gu ñu am ci juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi nuñ ko doon defee mbokk sahaaba yi nuñ doon wanee seen mbëggeel boobu nañ ko doon wanee mooy na ko boroom bis ba doon defee mbokk yonent bi alayhi salaam nu mu doon màggale bisam lan la daan wax bañ ko laajee ay yow yonent bi bari nga di woor bi sol ci ni mu ne waaw bis boobee ci laa judd bis boobee ca la yàlla wàcc ci man la nga xam ne ni mooy alquran nda am yàlla mujj na sax ci bis boobee ca la faatu loolu moo taxit yow mi bëgg yonent bi alayhi salaam bëgg sunnaam bëgg koo rey ay waaye kaay ma wax la li gën a màgg li gën a rafet li gën a yomb mooy fexeel ba def màggal juddoom naka yonent bi doon defee naka sahaaba yi doon defee mooy bu la yàlla may wér gi yaram nga wóor bi su altine jublu ci màggal yàlla ci koor amul bis booy wóor lu dul yàlla soril la ci sawara ay juróom-ñaar fukki la nga xam ne ci ayaat màggal yàlla ci bisu altine ndax bis la boo xam ne ak alxames dañuy gaaral jëf yi ci yàlla mën na am bu ñuy gaaral sa jëf fekk da ngaa woor yàlla subhanahu wa taala baal la waaye màggal guddi bisu àjjuma ngiree ci la yàlla tànnoon yeneen ci ba judd ca te la yàlla tànnoon wàcce alquran bi nga xam ne moom mooy texeel doomu aadama bi ila yumi diin mbokk lii aajowul cotisation aajowul paas aajowul lenn ca mooy rek xëyal woor am tuyaaba ju rëy ji yëpp kii mbokk mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu toll nañuy julli ci moom loo gën a bari julli ci moom mu gën a baax rawatina la nga xam ne mooy bis bu màgg bi nga xam ne nii moom mooy bisub aljuma daan nañu ñaax ne guddi aljuma ak la nga xam ne mooy bëccëgu aljuma ngal la waaye dee leen bari lool di julli ci man te xam ne seeni julli dana doon loo xam ne lu ñuy gaaral la fu ñu mën a toll ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla sotti ay xéewalam ci moom yal na yàlla julli ci moom julli gu amul app yal na yàlla ful mboolem julli yoo xam ne nii dañ koo mës a julli ci moom donte ne it mbokku julli di te ji bokk na loo xam ne mass média yi xamal nañu ko ah rappeur ba gën a ñàkk solo ci Amérique ba faatoo télévision yeeg rajo yeeg ñëpp nekk ci di ci wax ak la nga xam ne mooy écrivain ba wala ku mën a doon ci politiciens yi waaye xam leen ne it jamono ji islam ñàkk na benn ci ay ndawam benn ci ay ay ay ay doomu islaamam muy Cheikh Youssouf Qardawi bi nga xam ni faatu na daanaka ñetti fan ci gannaaw dund na lu jege téeméeri at koo xam Youssouf Qardawi dana xam ne liggéey bi mu liggéey ci islam rawatina en Occident ca la nga xam ne tubaab yi yàlla may na ko nouveau intellectuel bu kawe kawe mu xam adduna lool xam sunna lool loolee lim bind jege na téeméeri téere loolee mbokk yi jullit bu dee faatu na it jullit ñi war nañ war nañ koo xam ñaanal ko yàlla yal na yàlla nangul ko te taxawaay boobu it yal na yàlla wuutu ko ci xeet bi loolee di mbir boo xam ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax mi ngi noonu am nañu it benn soxna boo xamee ni nii da doon ñëw fii yéen ndaw ñi xam maam ab sa saar moom moo juru soxnaam dafa faatu léegi ñu ngi ko war a waajal gannaaw takkusaan yal na yàlla jéggal ko ci jéggal bépp jullit allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar allahuma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا برحمتك من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا برحمتك وجعلنا برحمتك للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد سبحانك رب رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين